asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen ziar di leen bëggee di à travers des 28 pro di ziar ñëpp ñuy bëggee di leen wax tey dañ leen indil ganu spécial gën ko xam si nee naa leen bu nekk présenté rek di ngeen bëgg di ngeen kontaan ndax liggéey boo xam ne si def na ko si aar bi nekkoon koo xam ne si ñëpp ko xam te ñëpp ko ràññee mu siiwee di série boo xam ne si def na bës fépp fépp fépp joole na ku nekk ku nekk ku nekk joole na ko mag ndaw góor jigéen ñëpp yàgg a bëggal ñëpp nag xam naa nam ngeen ko lool te boo leen gisee xar kanam gi mais teewul mi ngi fi woon ba léegi tey nag dinañ jëm a defal moom benn interview waxtaan ak moom fu mu nekkoon ak si lan la newoon ak moo tax ñu gëj ko gis ak la kenn Claude Coumba Sida mu siiwoon boo xam ne si Siri boo xam na monde bi yëpp ñëpp xam ko mu jooloo ku ne moo siiwoon personnage bi bu joos jooy yoo xam ne si moom tamit kenn laaj loolu lépp dinañ ko waxtaan ak moom ñu xam la moo tax mu raar ak si la nekk ak la ma ay ñu ngi lay nuyu sama yaay waaw maa ngi lay fay sama doom bu góor di la ziar bu baree bari di kontaan ci maanaam nii nga ma dalale di ci kontaan lool di ci am mbégte. yaa booy tey 28 Pro dañoo ñëwoon seet si la. Mhm. xool si loo nekk nag gëj nañ laa gis gëj nañ laa dégg. waaw ba tey li ma waxoon rek maa ngi nuyu ñëpp képp ku may seetaan maa ngi lay nuyu ci di wax ne maanaam ñu bari dinañ ne man fan laa nekk mm. dama dem ba benn moment. ma xam ne aar bi neex na dëgg la mais sëy mooy baaxu jigéen bi ma xamee ne sëy mooy baaxu jigéen far juste yàlla tombe la mag góor gu baax gu ma bëgg gu ma yërëm ma jël lépp teg ko ñëw ba Touba Mbàkke ci dëkk sëriñ Touba bi ñëw di fi sëy ba pare bëgg fi aussi jaamu fi yàlla may murit nag sama baa waajur bu góor di murit yàlla boole maag tamit ma daje góor gu nekk murit loolu moo tax lépp luy aar rek ma bàyyi ko ñëw ngir jëmmi sëy te yàlla tax ngir sama njaboot ndax moo ëpp avenir loolu moo tax waaw jërëjëf yaa booy ginnaaw bu weesoo loolu dañuy delluwaat ginnaaw tuuti si nga xam ne si mooy série boobu nga xam ne maam si woon ko maam tey série boobu ku ne xam nga ne maam waa daare Kocc ñoo ko si woon te daare Kocc nekkutoon benn tur bu ndaw jamono jooju daal yaakaar naa mooy mooy daare Kocc fu nekkoon ak jamonoy tey jamonoy tey léegi maam na nga duggee si biir daal Kocc ba maanaam na nga wala wala daam daam koo si artiste mag yi mu et puis tamit maam nan nga def yow ba ñu jox la actrice principale bi loolu tamit nga suyoo ko réussir ko noonu. waaw laaj boobu moom dina ma neex lool te lu may sawar a tontu la man sam papa mooy Ibrahima Ñing ñii gën ko xam ci Joseph ñii di ko wooyee Baye Ili sama papa bi mu jur moo mu dugal ci théâtre ba mu ma yóbboo tamit daaree kocc ba mu ñëwee na dañ ma teste ndax Cheikh Tidiane Diop yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko àjjana papa Cheikh boo egsee du ñëw rek mu jox la rôle boo egsee dañ lay auditionné xool la càmbar la ba xam fi nga mëne fi nga mëne toujours papa Cheikh foofu la lay jox moo tax artiste su daaray Kocc foo ko fekk polyvalent lay doon rôle boo ko joxee comédie day dem boo ko joxee drame day dem te ñun booy xool surtout nag liñ daan théâtre lépp drame la parce que théâtre bu njëkk ba ak théâtre léegi du benn parce que tey nii nga ma ñëwee ni bett maanaam ci caméra amuma ci benn lu ma déranger parce que dama tàmm jouer ak sama xol paa ma sañse paa ma takk or paa nga maquillage ba kenn du xam looy nuróol papa Cheikh toujours daf naan caméra boo ciy dem dorul nga mel ni kuy dem ngénte moo tax ci nii ngeen ma fekkee rek ubbiwuma armoire soluma dara ci noonu laa leen wuyee parce que naturel bi moom la ma Cheikh Tidiane Diop yare moom la ma xame moo tax ba heure bu may génn ak fu mu mën a doon ci naturel boobu laay génn mais sama waajur bu góor moo ma dugal daare Kocc ku ne xam na ne Ibrahima ñi moo joué woon rôle Joseph ñi teg ko njaago ñi teg ko ay catholique lu ne teg nañ ko te jullit àqan di murit Sadex ñu tudde ko sëñ Cheikh Lo Ngaabu mi moom borom Ngaabu kooku mooy sama waajur góor loolu ma dugg ci théâtre. kon man ne man théâtre bi na la. waaw théâtre moom sama sang la nekk don la. don la du ma du ma répété tàyyi naa ko foo mu ne kopp rek damay dem direct parce que don la sang dafa fort sam ci loolu la mës di dox ci loolu la mës di dund li mbëri naan xaalisu mbër lañ ma ngénte man su ma yeboo ma ne xaalisu théâtre original ci lañ ma ngénte kon bu ko defee dañu delaat tuuti ginnaaw parce que xam ne maam daara koccu ni mu tolloon te bëri woon na ay artistes yu mag yu mel ne ay Baye Ili ay Mokari Dieng yooyu noonu yëpp ay suñu yaay jeewoo yooyu noonu yëpp te yow gis na ne maam rôle boobu noonu artiste prépa la ko joxee na la yow maam ñono jooju nekk woon mag noonu xale bu ndaw woon maam naka nga mën a ñëwee nekk xale ndaw ñu jox la maam rôle bu noonu nga nekk artiste prépa bi et puis yow nga réussir ko xam ne si tey képp ko seetaan série bi day jooy te série bi maam mën naa wax ne maam yoroon nañu bëree bëri bëri uhuh. maam yow envers toi maam yow rôle bi mi ngi ko joué près yéen rafet nañu indaas ci yow. waaw Coumba Sida moom booy xool li tax ma gën ko réussir sam ci la parce que biñ ma joxee scénario bi dama ne ko papa lii difficile na mun a mën a dara difficile looy def ak amour du difficile ci yow sam papa day tëdd ba guddi ma may répété ak moom. sam papa bu dañuy toog minute mu waat ma ñuy répété waat man ak moom te du tee bu ma demaatee daare ko dama koy damay répété waat aussi su ma réussir réeróoru Kumba Sida grâce à sam papa Ibrahima ñi ngi yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko àjjana moo jàpp ci la racine du mal ba tax ma réussir ko ba fu ma tourné ci àdduna ñépp naan ma sa rôle bi vraiment mais ni nga ko joué normal na jooyloo na mag comme li nga wax jooyloo na xale li nga wax parce que li ma doon joué sama xol la jógee li ma doon joué sama xol laa ko doon yëg aussi ñi ma ko bokkal rôle bi tamit ñu nekk ay artistes yoo xam ne ay ndaanaan lañ nday xadi maa ngi koy nuyu au passage moom tamit yàlla na ko yàlla yëkkati ci jàmm ak salaam dafa jox role bi àqam jaak fi mu ne nii. Euh, la gis nañ ne maam Serigne moo la gënoon moo la gënoon jege Ndeye Khady moomu ci gënoon jege pare jox parce que àdduna bi fa leen jaaree bañ ko ba tey kon li bu nekkutoon lu naturel ci moom mbañeel gii ko àdduna bi bañ duñ ko ci bañ. kon Cheikh Tidiane Diop daal man lépp moom laa koy gërëmee papa Cheikh daal lépp moom la lépp daaray Kocc la. kon sama yaay ko bu ko dee kon tey damay laaj maam séquence yooyu nga maam séquence yi nga suyee si maam Kumba yëpp yëpp yëpp tey ji la ñuy wax ban séquence moo la gën a marqué. ñaar bu ma ci gën a marqué mooy bi ma demee yóbbu natt bi ci ndumbe mu wax te comprendre ma bi ma dikkaatee ci biir kër gi nag doomu jaag moo tax ma xam ne man feebar bi dal na ma parce que innocent laa ci feebar bi. Mm-hmm. feebar bi dal na ma te xaw ma ne feebar bi dal na ma mais bi ma ñëwee yaayam ne ma duma ma bokkati ak ñoom lekk. doom ne ma maa moom dootul lido ci biir saal bi loolu marqué na ma beneen bi ma gën a marqué nag te même ba ma koy joué dafa mel ni ci dëggantaan laa nekk mooy bi ma demee fekk abu ci ci néeg bi di ko wax ne ko bon nga wor nga ma te yow mag nga parce que sa benn tànk mi ngi àdduna bi ci des mi ngi yomal xiyam nga yàq sama àdduna ñaari séquence yooyu moom vraiment lu ma marqué la te lu ma lu ma lu ma lu ma joué ak amour la aussi tamit ñaari séquence yooyu moom marqué na ma macha allah mbook yi kon dégg nga ko maanaam lii rek maam lii mooy artiste instant boo dégg ni waxee rek nga xam ne ñii ñoom seen jamono ñoom dañu doon jouer ak passion dañu doon jouer ak bëgg-bëgg wuuteeg série léegi kon bu ko defee dañuy dem si mooy ñaar séquence yi mu wax rek mooy fi mu yóbboo natt kan si Kumba. dama yóbboo natt bi Ndumbe. ci Ndumbe ab bi muy ab bi ñëwee kër gi ñu xamal ma ne ma dootuma bokk ak waa kër gi lekk. bu ñuy li dooti dootuma bokk ak ñoom parce que bu ma laalee dee bi dama leen di wàll si daal ñaari séquence yooyu ñoo ma gën a marqué kon bu ko dee mbokk ñu dem séenandoo di ñëwaat. waaye yaay lan moo tax ngay beral kumba tey. dara dara la kay. ay nag ba xale ba léegi ñun ñooy bokk di lekk. tey nga xëy ba ko ba pare du dara. ma ne dimbali ma sa làmmiñ rëy na aw ma dara lu ma leen di expliquer jox naa leen ngeen lekk lekk leen ñu jeex ma kenn du yem am yow amul fa la ñu am. xewee leen di naan xam ne dee bi dootuma ko laal tant que organisé wuñ ko ba pare mbala ñu julli bee dee man jaay dee bi dootuma ko laal organisé asuma si tiw ma gaanu ma ma ngeen di raxas dee bi te eh, kii gaana la wax yow li la dal gaana moo ko gën a sedd tamit Kumba yaa ngi war a gën a xam sa bopp yow mii yaa ngi gën a xam sa bopp xanaa kay ne danga ñoo bëgg a jeex ba xam-xam nañ li xewam liir waaye xam nañ ko amul problème mën ngaa dem mais yéen du ngeen ay gor yéen ay jaam ngeen parce que su ma bokkee ci natt bi su ngeen demee ba may baal war ngeen a mën a jàkkaarloo man face wax ma dëgg gi dëgg gi rek nga bëgg a xam. waaw dëgg gi a xam di ko xam tey. Kumba xale yi nee nañ ku ñu wàll si daa. comportement eh! famille mu <laughs> ma gën a jaaxal dañuy commencé di ma daw ndànk-ndànk fi mu ne nii kay may soogee comprendre. ay yow ñaati yoon laa la wax ni la sama linge bu ko laalati ah et sax looy taxut di ma xuli la may xoolee lan la. abu yaa bon yaa sew yaa soxor yaa mees yow jaroo wax sax papa ndax matoo kilifa yàqal nga ma sama àdduna may xale bu ndaw. di doog a dugg ci buntu àdduna benn tànk bi rek laa teg bi ci des sax egseegul yow mi nga xam ni dox nga sa àdduna ba mu jeex màggat nga dee rek moo la dese sa benn tànk gi àllaaxira bi ci des day lang yow yaa soxor abu yaa soxor yow ma ngay wax ci biir ton abu yaa yaa soxor yaa mees yow daal sa tantara bu ñëwee fi tey sama compte dinaa ko réglé moom. déedéet tantara bi yoonam nekku ci sama compte man ak yow ñoom ngi koy réglé ca yàlla waaye nag man jàll naa fi mu ne nii sa tuur la boo jógee nga wuy ji docteur bi gënuma la koo xam ndax yaa ma fa yóbbu woon. yaay booy kon dañuy ñëw ba léegi maam biir daari kocc bu ko defee gis nañ ne ay artistes ma nga fekkoon ay artistes ma nga juyal mhm. te ñooñu ñëpp am ñoo xam si ñoo xam si yàlla yóbbu na leen mhm. artistes xam ne fi ndax yaa ngi leen dégg ba léegi seen relation mi ngi dem mi ngi maam yaa ngi dem dikkalante waaw artistes yi moom ñuwaa ngi déggante ak ñoom parce ñoom ñëpp keroog bi sam papa décédé kenn desul papa Tafa sën tamit ku taxawu sam papa la moom tamit Tafa papa mën lay aussi la même chose fu ñu faan fu ñu tourné ñu ngi leen di gis ñu ñëw ngir jëmmi yàlla ak sam papa kóllëre gi sam papa àndoon ak ñoom matale nañ ko marem ñaa aussi kenn gënu ko Mati Ndiaye nag moom moom moom moo nekkoon ku jigéen ki nga xam ne moo daan filmer papa Cheikh booy xool euh, euh, une sénégalaise à Paris Mati Ndiaye moom moo ko tourné Mati boobu moo yor suñ caméra ci daaray Kocc ba fii may wax ak yow ay doomam Kazu Rajab fi la ñuy dal lu Tuubaa fi la ñuy dal at mu jot bu ñuy màggal si sama kër gi la ñuy dal def fi deux jours léegi nag xëy na loo gën a xaw a jëm mag jot gi dootu la ko may daanaka ñu bari ñu daan màggal si ak nga amaat say doom bu nekk tuubaa wala yaa xam sa frère bu fi am kër kon maanaam gise bi dina xaw a am tuuti distance mais déggante bi moom saa su ne day am parce que man aw ma lu dul Daaray Kocc ndax lu ma am tey Daaray Kocc la ndax même fii ma toog nii tey ci Touba Mbacké gi sama borom kër gi bu du woon ak Daaray Kocc du ma xam kon Daaray li mu ma jox rëy na li mu indil rëy na ko ci li mu indi rëy na. yaay mën nañoo xam maam série boobu maam ban année la nga ko tourné woon mais Coumba Silla ban bi te léegi maam maa dafa mel ne ba léegi nii maam day ngay def actualité maam série boobu. waaw pour wàll ne la maanaam théâtre dama bi ma ñëwee tuubaa rek dama ko dindi ci sama mémoire tey ji boo ma laajoon cassette yi ma joué sax jéematuma koo xam ndax sëy bi ak sëñ bi. soo ma laajoon date ban laa amoon bii kaset bii kaset xamatuma ko ndax dama ñëw rek te sëy bi ak sama njaboot gi ak li sama borom kër buggul théâtre ma jël théâtre ma ma jël ko rek dama ko jël rek supprimer ko tey théâtre boo ma laajoon sax am na ci yu bari yoo xam ne defatuma ko sax sama moom i war ndax sëy bi parce que sëy bi daal fi mu ne moo ma gënal lu ma am. yaa boo ko defee kon si beneen question mooy ndax Daaray Kocc mhm. da amoon kese wala maam yéen artistes dina naan fay wala ni ngeen naan suyee par amour. non dañu daan fay tey bu ñu la joxee rôle papa Cheikh dalay woo ba biroom ne la rôle bi yow loo bëgg ma jox la ko avance nga préparé wu ci dañ lay jox xaalis nga préparé wu yaa xam loo bëgg nga jënd ko papa Cheikh musul lekk ñaqu nit heure boo ko tournélee dina la fay ba wis la man nag moom mention spéciale parce que man doom laa ci biir daaray Kocc man aw moom limite sama salaire bu nekkoon 400000 mën naa dem ba nekk 600000 parce que sama papa la man saa yu ma soxlaa robb rek wala ma bëgg tubay wala ma bëgg daal dama koy ñëw ne ko papa lii laa bëgg parce que man booy xool xanaa léegi sax laay sol grand boubou mais man nekk naa euh, Dakar ba ni may am borom kër musuma am sax sër mais loolu ma opté woon ba tax nag ma wut jëkkër toog say gis nga ma nii tey maa ngi ni nekk mère parce que am naa doom bu góor bu tudd Serigne Abdou Khadre Mbeng sama mi ngi tudd Fatma Mbeng ñaar yooyu bant yooyu la ma yàlla jox may gërëm bu baax it sama nawle bi nga xam ne it moom laa bokkal biir kër gi muy sama aawa bi Ami Sall moom tamit di nit ku baax du neex a bokkal kër man daal bébé daal boo bëggee dégg-dëgg sëy bi daal fi ne moom laa gis. waaw ah, kon nga xam ne maam jamono jooju maam tur maam jamono jooju maam technologiquement avancé woon jamono jooju noonu. booba kaset moo amoon. seen tournage man nan laan demee man nan laan déroulé parce que xamoon na ne. parce que boo xoolee ma Coumba Sall dafa mel ne maa nu ko joué si ñaari ñaari lii li nga joué. parce que daa mel ne mooy bëgg dee dëkk bi. bi nga ñëwaatee ci biir Dakar dafa mel ne am na distance. loolu man naka ngeen ko tourné ak naka la demee noonu. tournage Papa Cheikh day def bu fekkee dañu am route boo xam ne ci àll bi lañ ko war a joué dañuy dem fu mel ni ay Gorom wala Kër Mairie Ndaw wala ay euh, avant ngay egg si ay Sindia yooyu côté Mbour ñu tourné fa ay role léegi nag bu fekkee rôle yi séquence yi nga xam ne ci biir Dakar la yàlla daf ko mayoon connaissance boo xam ne bu bëggoon këru château sax bu ñu fa bëggee tourné dañ fay tourné parce que dafa amoon connaissance bi léegi dañuy njëkkee tournée yi ñu yi ñuy def ci àll bi ba pare dañuy génn dañu am ñun daari ko dañu amoon oto boo xam ne bii artiste lay def bi matériel lay def bu ñu fa waree def deux jours hôtel la ñuy dem mu dalal ñu ñu fay def deux jours bu ñu xëyee dem tourné Dakar ba suñu tournage jeex ñu demaat Dakar soog a eggale yi nga xam ne Dakar lañ ko war a tourné noonu lañ doon liggéeyee bu ñu paree Papa Cheikh tamit euh, suñu fi ñu doon répété dafa amul salle boo xam ne salle dafa am nañ salle bu ñuy répété amaat salle de montage cassette bu ñu mas a pare Cheikh Tidiane Diop moo ko montel boppam bu mati filmé wala Thierno Sidibé euh, Cheikh Doumbia moo nekkoon preneur de son Marème Niang moo doon def script ku bi ku ñuy lu waaye di wax rek Marème moo lay wax nga def ko suñ paree Cheikh mooy monté ñun lépp ci biir daari ko ci la woon amul leen luñ daan jénn di ko jëli parce que matériel bi ñoo ko moom ñoo ko ñàkk ñoo ko liggéey te Cheikh moo daan monté moo daan def lépp te Cheikh it am lu ko théâtre jaral parce que instipasseuse la doon liggéey def départ volontaire pour mën a jënd caméra ñun beta moo ñu daan tiim caméra beta di jar ay millions ba pare moom it muy def fëye falaam nag léegi la aar bi bari nii rek théâtre beeg cassette yi bari lool waaye ku ma san dégg xalal leen yoonu daara ji dina la jaral nga daw fii ba fii ba Jurbel Touba ba Njaareem da la koy jaral rien que pour seetaan daaray Kocc gis na ne maa jamono jooju maa yombutoon méttoon na lool gis na ne sax boo duggee théâtre maa na nga dégg lu ne tey nag gis na ne maam milieu bi instant yaatu na tey ñu ne nga si gis façon artiste bu ne nga gis maam série yu bees yi nga gis télé na différence waa am na ci lu bari ñun temps yi ñuy def théâtre defuñu ko woon pour nañ maquillage bañ gis ñu defuñu ko woon pour nan sol yére bu sexe bañ xam ñun lan lañ bindoo defuñu ko woon pour jaayu ci defuñu ko woon aussi pour di ci wut xaalis ñun dañ doon def théâtre pour di yee doomu aadama yi di yee nit ñi di leen xamal lan mooy àdduna amour lañ ci amoon même buñ tourné woon ba pare Cheikh fayuñu sax yow da ngay bëgg parce que lancé nga message boo xamante ne ni ëllëg say doom ba say sët dañ ciy jariñu parce que tey maa ngi ni toog sama kër gérer sama foyer mais sama doom bu jigéen bii ma am cassette bu ma mës a tourné mais ba fii may wax ak yow rusuma ma toog moom mu toog ñu setaan ko parce que du ci gis lenn loo xamante ne nii dina ci mere yaayam non non non lépp lu ma mës a joué ma mën na ko seetaan ak jëkkëram mën na ko seetaan ak doomam samay sët du mës a ne sama yaay xoolal rôle bii mu def parce que lii dama ko doon sóor ak lu millier bi neex-neex. liberté bi am am maa ngi doon sàmm sama ngors ak sama kóllëre ak ëllëg su ma amee samay doom fu nu jaar ñu respecté leen loolu moo taxoon toujours rek mbubu sutura mi dama ko doon sol ba bi ma koy sumi mbubu sutura mi laa sumi ñëw nag sol mbubu néegu sëy macha allah loolu am na solo mu mel ne léegi maam série léegi dafa mel ne lu ëpp mooy sexe la ñuy wane ay wax yu bon ku dàq saaga sa morom loolu nga gis série léegi waaw yow série léegi maam boo ko seetaan yow yow xam ne en tant que artiste mhm. yàgg mhm. boo seetaan théâtre léegi maam ba ñu bañ yëg-yëg nga si am yow bu may seetaan théâtre léegi yëg-yëg bi ma ci am mooy seen solu sexe na trop seeni parole aussi neexuma parce que xale léegi dañuy roy tubaab yi ba mu yàqu ba ëpp trop parce que tubaab mooy joué film bu la waree bu waree saaga yaayam saaga yaayam mais ñun léegi dañ leen roy ba boo waree saaga sa papa da nga koy saaga ci biir pièce bi soo waree xas sa yaay da koy xas ci biir pièce bi man am na pièce yoo xam ne awma droit toog di ko seetaan ne du ma ko du ma ko setaan mais am na théâtre yoo xam ne dama ko tere samay doom ba série yooyu duñ ko setaan dama koy zappe sama télé du ma ne nag bii la ak bii parce que dama ci jaar ba jàll kon duma ma sikkal kenn mais am na ci yenn moo yoo xam ne bëgguma samay doom di ko dégg am na ci yenn séquence yoo xam ne ñu ngi koy tourné man neexuma te bëgguma samay doom di ko setaan yaa booy sama question mën naa ne du yàgg dañ laa ma gëj laa gis loolu si aar bi mhm. instant yi na ngaa bàyyi wala ma producteur yi ñoo woowut tey boo gisoon benn producteur boo xam ne maa woo na la daal bëgg liggéey yow ndax di nga liggéey moom yu mel ne ay Marodi mhm. ay FM Prod yooyu yëpp nekk na fi nekk ay producteurs yu mag a mag mhm. est tey bu mhm. ko joué wala doo a ñëw Touba am ma ne ma bëgg ma liggéey ak ñoom waaye xam nga jigéen moom boo xasee ba nekk si néegu sëy da ngay am kilifa ma woo sama borom kër bi ne ko dafa am ñu fi ñëw seet si ma pour bëgg liggéey ak man moom mu ne ma carrément nday ba ma ne ko ah mu ne ma soo bëggee lu ma neex dootoo dem def théâtre awma lépp munuma lépp mais loo bëgg suba ba ngoon boo ko soxlaa man dinaa la ko defal mais su ma sañoon dootoo théâtre sama borom kër moo ma tere théâtre mais chaque jour maa ngi doon am ay contact chaque jour maa ngi am ñu fiy ñëw di ma woo waaw kay sax ndax euh, laaj bi sax baax na parce que Mouhamed Ndiaye mi nekk TFM papaam Ibrahima Ndiaye maam yaxi laal moom tamit yàlla na ko yàlla yërëm mook sam papa ñoo bokk benn dëkk yarondoo ci benn quartier defandoo lépp demandoo dakaar ñëw na fi du benn du ñaar ngir bëgg ma tourneel ko ci Modou Massilé daf ko bëggoon def télé ba tey sam borom kër bi bañ comme que nag moom bëggul te moom mooy sama kilifa lu mu metti metti te man maa ne say moo ma gën a kon su bëggul rek naa bàyyi théâtre bi loolu tax ma bàyyi théâtre théâtre bàyyi naa ko moom te dara du taxit ma delluwaat ci lii de wane ne maanaam ñii dañ leen yar te nekk nañ ay mag yoo si képp ku roy ñoom rek di nga dem parce que instant li muy dund nii ak li muy nettali nii tey jafe na lool lool lool lool lool gis ko xale yi xale yi léegi pour seen jëkkër wax leen dara wala seen bur ko wax leen dara man def ko léegi gis na yombatul ce mot de la fin lan la. waaw sama tàggoo mooy maa ngi gërëm ñëpp képp ku ma gëj a gis kumba sa soppe mi ngi nii képp ku ma gëj a gis sa xarit baa ngi nii feebaruma euh, dara jotuma maa ngi dund aussi lu jaaxal doomu aadama yi maa ngi dund maa ngi ci jàmm maa ngi ci salaam damay sëy te sama jëkkër bëggul ma théâtre loolu kese la mais fans yi maa ngi leen di bége soppe yi maa ngi leen di bége yéen tamit maa ngi leen di remercier bu baax parce que dérangement bi ngeen def ak déplacement ñëw ba sama kër nit ñi réer nga fexe ba wan ma leen bañ xam ne man dara jotuma yéen tamit yal na yàlla barkeel seen liggéey yow sama doom ju góor ji tamit yow it mënu ma la fay ndax yow tamit euh, mooy booy mën a yow mention spéciale parce que lii lépp yow la su neexoon lii lépp du la ci fekk maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam asalaamaaleykum. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di bégewaat di leen nuyuwaat di leen wax na tey suñu yaay ju baax di leen indiloon muy Kumba si daal xam si woon série bu mag boobu xam si tey jii fii ba àdduna tukki képp koo seetaan rek ni nga si jàng ay message yu am solo jàng si àdduna jàng si lépp tey ñu dalaloo nga fii fekk soon ko fii si kër ma xam si fii la dëkk si forage nekk suñu yaay ju baax ñu seet soon ko tey rek mu nekk ko oyof mu dalal ñu accueil ñu accueil bu rafet dala ñu ñëpp ñu ngi lay ñaan yaay booy gudd fan ak wér gu yaram loo bëgg si njaboot yaa xam yàlla na yàlla jubale si borom kër tawfiix ak taysir lépp daraje borom Tuubaa kon mbokk yi ba beneen yoon